assalamualaikum gars dalen dal leen ak jam benen yon sen YouTube bi di ko TV donc ma ngi jégalu nak ci yéex dugal bi vidéo ndax yi wàccaayu tawaski gi mo taxone euh, donc ñu ngi di sant bu baax baax si setan bi ak ci lay gi en même temps ci partage bi aussi ndax ñun ñep man ci jëriñoo donc tay nak liñ am moy dañuy motali wala continuer ci conte bi boole ko nan la ñuy joxe numéro ci anglais one mooy benn two mooy ñaar three mooy ñett four mooy ñeent five mooy juróom compte wolof nag fii la yem benn ba juróom compte anglais nag moo dem ba fukk waaye compte wolof moom benn commencé ba juróom six moy juróom ben seven moy juróom ñaar eight moy juróom ñet nine moy juróom ñent ten moy fuk eleven moy fuk ak ben twelve moy fuk ak ñaar li tax mané ne compte wolof juróom la yam moy da ngay commencé at ne juróom ben juróom ñaar ak juróom ñet donc kon compte wolof juróom la yam compte anglais mo dem ba fuk thirteen mooy fukk ak ñett fourteen mooy fukk ak ñeent fifteen mooy fukk ak juróom sixteen mooy fukk ak juróom benn seventeen mooy fukk ak juróom ñaar eighteen mooy fukk ak juróom ñett nineteen mooy fukk ak juróom ñeent donc gis nga catégorique li ki commencé ci treize mooy thirteen ba ci dix-neuf mooy nineteen yëpp dafa terminé tiin tiin pour nga gën a comprendre gën koo gaaw a mën a mokkati donc thirteen fourteen boo koy prononce nekk na leer boo waxu tiin rek du nekk treize donc il faut nga wax tiin ndax boo ne tii boobu beneen kaa la si lañ jëm ni moo tax si wax euh, ci contexte ci anglais wax bi nay leer ndax anglais moo demee noonu lu tuut rek boo ko xaw a négliger si prononciation bi da ngay dugaat si beneen moom ok 13 14 15 16 17 18 19 twenty mooy ñaar fukk thirty mooy fanweer forty mooy ñeent fukk fifty mooy juróom fukk sixty mooy juróom benn fukk seventy mooy juróom ñaar fukk eighty mooy juróom ñett fukk ninety mooy juróom ñeent fukk yiitim am na luñ bokk nañ xool lan lañ bokk mooy lan mooy ca termination ba lan moo am foofu mooy bépp nombre boo xam ne dafa ñëw yër bu baax benn nombre ñëw zéro topp si mu nekk comme ça ay vingt trente quarante cinquante soixante soixante dix yëpp ci anglais ñoo bokk même terminaison yëpp tii lay terminé loolu tax ma doon wax ne boo bëgg wax sëratiina nga xam ne treize nga si jublu boo waxut in rek i ngay wax te boo waxee i mooy boobaa trente ngay wax dégg sa tii mooy trente sa tii moom lañ romboon léegi mooy treize mooy fukk ak ñett ok maa ngi koy liiraat twenty léegi nag boo bëgg wax ñaar fukk ak benn lii ngay wax rek twenty plus benn mooy comme ni compte wolof ba nga ne juróom foofu la nga commence bëgg a continuer ne juróom ak benn juróom ak ñaar juróom ak ñett juróom ak ñeent dégg nga doo ko wax fukk gis nga kon lii tam boo ne twenty mooy ñaar fukk nga bëgg wax twenty one muy ñaar fukk benn twenty one twenty two twenty three twenty four twenty five twenty six, twenty seven, twenty eight, twenty nine, thirty kon noonu rek la ñuy compter lii ngay jël rek plus que suñuy njëkk ya moo nekk nii rek pour mu gën a leer twenty one gis nga twenty two twenty three twenty four twenty five gis nga twenty six twenty seven twenty eight twenty nine gis nga twenty eight twenty nine donc gis kon da ngay plus rek one boo xoolee côté bi mooy one two three four five six seven nine côté bi mooy twenty twenty twenty kon pour mu mën a compter loolu lu yomb la ci anglais léegi bii nag yow yaa koy wax dégg benn rek laa si wax nga continuer ko yow thirty one very good okay

noonu la ñuy comprendre maanaam compte bi waaye nag dañuy continuer ci 90 bi mooy juróom-ñeent fukk lu ci topp téeméer moo ci topp très bien kon 90 lu ci topp mooy hundred hundred hundred hundred thousand hundred mooy lan mooy cent thousand mooy lan mooy mille million million million ok mooy million bul wax million million million ok hundred thousand million hundred thousand million ok hundred thousand million lii mooy compte benn ba million léegi nag ñu joxe exemple yoo xam ne mooy tax nga comprendre bu fekkee moo yi dañoo bëri dajaloo yow mu nekk ab digg maanaam mu jaxasoo bu nekk ci ban place nga koy teg noo koy liiree ok léegi exemple dañuy am one two three four ñu fekk leen nii ñu cadre leen nii maanaam fii bu doon ni ci français nu ñuy wax. dañ one thousand two hundred thirty-four. mille one thousand two hundred thirty-four. nañ nan lañ koy ci anglais très bien one thousand two hundred and thirty-four nii lañ koy waxee one thousand two hundred and thirty bu nekk place bu nekk fan la jëm one thousand mooy mille benn mil ak ñaar téeméer mooy ak deux demaat ci beneen exemple léegi exemple giving number giving numbers je nan la ñuy joxee numéro téléphone très bien léegi numéro bi mooy sama numéro téléphone donc moom lay joxe nii léegi xoolal ndax dañ fay nekk nan milliard wala million déedéet da ngay indi par benn lettre par lettre ngay jox nit seven eight two one 0 8 2 8 7 xoolal bu baax nit jox sa numéro ni nga koy joxe ni ñuy joxe ci français duñ ko joxe ci anglais numéro comme bu dee français fii dama 78 comme mu mel ni dama 78 78 mais du ma wax loolu bu dee numéro téléphone de dama naan la seven nga def seven ma ne eight eight two one zero eight two eight seven nii la ñuy joxe numéro téléphone ci anglais leer na très bien. ok bye bye so practice makes progress.